saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey doore ko ak journal record fekk fa Yaxya Jóob Yékini Yaxya Lex roi des arènes Faata production ci xët wu njëkk journal record Yaxya Jóob Yékini nga fay fekk mu wax li tax VIP mënuñu am combat wax ci problème bi arène bi di jànkonteel ak dund gi muy dund jamono yi ñu toll nii lépp li waral VIP mënuñu am combat ba léegi Yaxya Jóob Yékini yàbbi na ko ci journal record dem na sax ba xamle moom Yaxya Jóob Yékini daana jàppale promoteurs yi ngir ñu taxawal ay combat am a a taxawal combat waaye problème bi arène bi di jànkonteel lenn lu dul xaalis problème u arène bi bu ngeen ko déggee xam leen ne koppar la le seul problème de l'arène c'est l'argent loolee mooy waxi Yaxya Jóob Yékini mu ne jarul di wër gauche ak droite problème bi lenn la xam ngeen ko xam naa ko muy problème u xaalis bu weesoo loolu làmb ji amul problème waaye nag li làmb ji di am problème u xaalis yépp am na ñoo xam ne nii moom làmb da leen di déranger il y a des gens que la lutte dérange am na ñoo xam ne nii tey bu ñu sañoon làmb du fanaan bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg te duñ ko mës a bëgg firnde bi mooy violence ba amoon ca Demba Diop ci match Mbour ak Iso bu doon làmb la ba nii waxatuñu làmb bu doon làmb la ba nii gas nañ ko suul ba mu waxee ca lutte sans frappe Ba dafa félicité Jackson ne vrai guerrier ngi noonu organiser lutte sans frappe ci arène nationale teg fa 10 millions amoo parrain amoo sponsor loolu ku nekkut guerrier bëggoo làmb doo ko def rax ca dolli ne bu jógee Mbour samedi bii ñu dëgmal dese na yeneen juróom benn journée yu mu war a dóor ci lutte sans frappe bu nu jàllee ca sunu làmb ca xët u njëkk wa dañ fay fekk Tafa Gueye ma yëkkati ay kàddoom jébbal ko Papa lu mel ni xamee la Moustapha Gueye yekk Papa Sow Papa Sow a insulté l'écurie Fass loolee la Moustapha Gueye xamle Papa Sow dafa saaga écurie a démissionné Papa paas dama décidé woon ne bu génnul ma génn loolee nag dara waralu ko lu dul dëgër bopp gu mu dëgër bopp Papa booy wër ku dëgër bopp ba yegsi ci moom jàppal ñenn ñi jàpp nañ ne maa ko dàqulu waaye bureau écurie mooy décidé te mbir mi yomb na compliqué wut celui qui n'est d'accord avec notre règlement ti fou le camp règlement intérieur u ku ci d'accord da génn ca biti amul Jean amul Paul même man bu ma d'accord toon ci règlement dañuy dugg ci seen at mu bees te faaw ñu feetu loolee moo waral Ama Events ma taxawal combat bi daal di koy avancé ba le premier février bu dee jamaykee borom jam production moom joxe na date ba franc ak bébé saalum fa séenee jàkkaarloo franc bu parcelle mbooloog bébé saalum bu jimboori jamaykee jàpp na ko le 8 mars 2020 bu Jaxate moom ñaari affiche la fa séenee door le 9 février alaaji gayndeeg building la am la fa ñuy jeexale mooy combat ba amateur yi di laaj diggante Elton ak Giri ñaari mbër yooyee adversaire moo leen boole muy rëg-rëg loolee moo waral confrontation boobee amateur yi di ko réclamer jërë ngeen jëf mbokk yi li mu nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg allah